il faut une certaine technicité et il faut aussi bien savoir savoir faire ba nga euh, c'est pas parce que diplômé nga de tel ou tel endroit boo ñëwee rek da mm-hmm. quelqu'un comme Matar Cissé qui a réussi qui était ministre de l'intérieur moi je ne le trouve pas au ministère de l'intérieur te ne ko fa je suis pas d'accord mais je serais pour que ce gars euh, qui a été directeur général des douanes ñu yóbbu ko feul nga moy ministère de l'économie et des finances ça dit pour wax cette rupture là faire en sorte que les meilleurs, les meilleurs mais est-ce que si c'est même si les meilleurs la bokk ça, les gens ont tendance à oublier que nous n'avons passé hein. non non je pas attends xam non non je suis tout à fait d'accord avec toi mm. non je suis tout à fait en phase avec toi mais je dis quand je parle des meilleurs oui moi, que dit le le ñu là, mm-hmm. euh, président Bassirou Diomaye sur le ko mm-hmm. moi c'est d'aller vite pour convaincre les Sénégalais qui l'aiment. Mm-hmm. donc il faut nécessairement des hommes pragmatiques yi nga ñom ñoy taxaw fi tey tey tey tey tey tey mëna dérouler vite fait ça dit au niveau de la diplomatie quelqu'un comme Mankor néanmoins il est indispensable mais à ce stade il est incontournable quelqu'un comme Matar Cissé tey boko tagone ministre euh, de l'économie et des finances c'est mon point de vue hum. il a dirigé la douane qui est l'une des mamelles nourricières de l'économie sénégalaise il a été ministre du budget aussi Oui, ministre du budget qui est l'une des mamelles nourricières du Sénégal hum, hum crainte yi nga xam mom la sénégalais yi am ndax waaw weer bi bu dee daañu fayeku wala li yëg li yëg li dama né ci jam jamono ji am na technicité bi nga xam ñom ñoom ñooñu daañu leen soxla hmm. mais pour parler de Matar moi je suis bien placé pour parler de lui hmm. de euh, c'est vrai comme tous les autres ministres il y a eu des casseroles et tout mais bon dans le cas d'espèce je dis li nga xam mom le la sénégalais yi soxla hmm. mais justement moi des des gens qui peuvent tirer très rapidement vers le sommet li nga xam mom moom président Bassi Diomaye fay bëgg nga xam sénégalais bu ci nek da ci mëna profiter c'est mon c'est mon point de vue euh, ces deux là euh, so len so len amé fi tay wax fa deug yalla le reste nak mun nga nak xol ce bir parti ce bir coalition ay ressources humaines yi nga xam ne nañ mais tay li Sénégal gëna soxla c'est son image à l'étranger c'est vrai elle est très belle avec le départ de Macky Sall de cette façon mm. mais ñu gën ko parfait ba nga xam ne euh, euh, confiance ba nga Sénégal muy dellu si mu a mm-hmm. leneen li nga économie finance et consort budget et tout ñu fexe vite fait ak domaine bi aussi euh, la justice les grands travaux ñu rapidement pour faire en sorte que sénégalais adhérer non non non ñii li nañu ñi xaar ñi xaar ñi donc pragmatisme les gens peuvent très rapidement avec des gens qu'on appelle ceux du système faire en sorte que mettre quoi en place Vous nag bu quelques mois mais rien ne les empêche de Ayoba ne diriger euh, tel ministère pas Matar Kay, diriger tel mais ah pour moi, Matar le ministère de l'Intérieur, <laughs> d'accord ou accord ci. <laughs> pas, un petit les propos de Ousmane Sonko lui-même. depuis quelques mois pour ne pas dire depuis quelques années. Mm-hmm ni ñu gouverner ça me surprend que les journalistes soient surpris euh, par euh, certains actes yoo xam jël depuis des mm-hmm. parce que depuis quand même des des des années Ousmane dit le système dont il parle c'est pas des hommes. Mm-hmm. ay nit. Mm-hmm. ay nit ñoo système mais nañu amal Sénégal. mais. Diomaye Faye est président de la République du Sénégal. Mhm. Sénégal a géré 1960 ba comme dit Ibrahim, dañuy toj on reprend à zéro avec des hommes un état ne se gère pas comme ça. Mhm. ma suis ci ne Faye Ousmane Sonko tok na ci position bo xamné mhm. les hommes dont on parle ñi ci def yi ñep mhm. ñom ñoo ñu leen gëna xam fuuf. effectivement ku ci ku ci traîner ay casserole ñoom xam nañ ko. ku ci ku ci vertu xam nañ ko ku ci mëna gérer xam nañ ko donc mhm. la discussion n'est pas à ce niveau. ñom ñoo leen gëna xam fuuf mais man dama jappalé oui lima gis demb ak tay ça me paraît très très intelligent. té li tax euh, man mu satisfaire ma mooy c'est parce que depuis la semaine dernière je vais wax répéter mhm. je verrai bien Ousmane Sonko premier ministre expliquez ça na que lan moo tax. Mhm. quelqu'un comme Marita Ounia, tu tu peux pas l'avoir dans ta coalition. Mhm. non on va gouverner avec des jeunes na dem toog. xel surtout nga un président aussi jeune Ousmane Sonko à Saint-Louis. en en disant aux étudiants de l'université de Saint-Louis. que y a aîné les ñëw seet il a insisté pour leur dire ñun buñ fi nek suñu recteur mi ngi ak professeur Maritou mhm. le professeur Maritou ministre directeur de cabinet du président de la République le président de la République a Bassirou Diomaye am 44 ans mhm. Ousmane Sonko le premier ministre tay am am professeur Maritou entre les deux hommes moo gënoon am fa Faye Diop mhm. parce que c'est quelqu'un qui va tout faire pour quel que soit le contexte mu arrondir les angles mhm. concilier leen et loolu loolu dafa jar di bàyyi xel mhm. tey bu ñu fa quelqu'un de jeune comme ñoom xëy na yenn situation yi mën na poser wu day fax voilà mais malgré le rôle qu'on va devoir attendre de lui mooy s'il y a le moindre conflit il sera là pour dire revenons au au principe revenons aux fondamentaux Lol dafa am solo le secrétaire général du gouvernement c'est presque un vice-président mm-hmm. je dirais pas c'est un vice-président mais c'est quelque bon il maîtrise extrêmement bien les dossiers de l'État mm-hmm. que ni mots gëna maîtriser le chef d'État lui-même mais quand di nga un chef de un chef d'État bu mm-hmm. ñu le c'est un inspecteur général d'État, mhm. comme Matar l'est. Mhm. Il n'est pas de la paire parce que c'est pas son rôle d'être dans le parti politique. Mhm. a une possibilité de liguer ak moi, nga ne non possibilité de lier avec moi parce que Macky Sall la drôle. Mais bon gars s'il y a des couacs, s'il y a des manquements, s'il y a des blocages dans la gestion de l'État, mais il est responsable. Il ce qui est sûr moi Diomaye Faye du un problème pour que la présidence fonctionne parce que le secrétaire général il faut faire fekk Macky Sall et, l'eau c'est important. Il faut également le gouvernement. il faut nous sentir fii laa ko waxee mhm. il faut nous sentir dans ce gouvernement là une rupture. Mhm. une rupture mooy gis ay kanam yu bees. Mhm. gis ay compétences yu bees mu des sénégal de Pastef des sénégal de la diaspora des Sénégalais d'ailleurs mais du yam il faut que ce gouvernement là am de l'expérience. et cette expérience là am deux ou trois personnes qui viennent peut-être de la coalition ou je ne sais où. ñu nekk ci mais bu bu defarul le mi du ko yàq. il a été élu sur la base wala bok ni ko ni ko une grande coalition mhm. qui s'appelle la coalition Diomaye Président mhm. Ibrahima mi ngi que quand Wade est venu au pouvoir avec le fall 2000 mhm. très rapidement daf ko tas dàq ñom Moustapha Niass dem créer à côté Cap 21 ne ci nouvelle majorité mais je dis pas que Diomaye Fay va faire ça mais buñu faté né ñom ils sont ils étaient dans une coalition qui s'appelle le Yewi Askan Wi tey jii man dama japp né le Yewi originel ci boppam mooy ñoom Fall nous, avons Gakou je ne sais pas euh, am na peut-être cette coalition là. Hum. mais c'est une coalition. mais est-ce que nous ngi won sax euh, prestation de serment bi. non déjà Fall mi ngi d'accord Habib mi ngi hum. mais nous, dama né ne c'est euh, pur. pur exactement le hum. pur. mais nous, tay man dama japp ils ont leur place dans la majorité présidentielle. parce que pas que ça il faut pas en faire des opposants <laughs> ah non il ne faut pas en faire des opposants parce que vous le ne nous ñoo le même groupe parlementaire à l'Assemblée. oui effectivement Donc, ils sont dans le même groupe parlementaire à l'Assemblée? C'est pour mon il a besoin de ces gens là oui et puis vu que nous am ensemble oui Déthié Gakou Ousmane Sonko Le Pur Aïda Mbodj Vu que vécu bi ensemble ñoom Ousmane Sonko amuñu ko président. waa Diomaye président mhm. dañu wax c'est vrai Djomay président c'est quelques semaines. Mhm. mais Niass c'est des années. effectivement c'est depuis bien avant les locales. ils ont bravé ensemble les lacrymogènes. ah oui ce véhicule là ñoom ensemble mais ça doit servir à quelque chose man il ne faut pas en faire des opposants mhm. je ne sais pas dans quel cadre ils vont créer pour que nous ñëpp nekk ci mhm. je n'en sais rien mais euh, il ne faut surtout pas leur dire que ni non léegi c'est président allez vous opposer ce serait une erreur. aywa ba bu ñu ay choix forcément dina am ay frustrés euh, comme nous, mu ko rappelé Jomaay euh, président mën ni sax coalition de circonstances là, brine nous ñoo xamante ni euh, ba ñuy ñëw euh, peut-être dañ ñëwoon rek pour teg loxo euh, avons nañ peut-être que waa ji a chance pour don président ñiy xaar on ñooñu bouge rien du joxul dara est-ce que doo ragal nous génn commencer fippu ak di opposé ou contre Bassirou Diomaye Faye. non mais pas Makhtar fippu moom teel na <laughs> teel fi fi teel na ci régime bu bees bi de régime bo xam ne dañoo rupture ñom ñëpp ñu and ci déggoo ci ni rupture lañu bëgg vraiment. né la fi nekk la fi la waaw la fi la woon wonni na. Hmm. léegi Ousmane Sonko ni gouvernement bi mom nañ xaar gouvernement bu bu réduit 25 ministres. Hmm. donc quand tu es dans une coalition bo xam ne y' a près plus de 200 cent euh, cadres yoo xam ne ngi ci biir mënu ñu doon ministre évidemment hmm. donc foog mu am ay choix yu fort yu ñu def et puis du doon ay choix toujours politique drama yi technocrate technocrates yoo xamante ne leen woo dugal leen gouvernement bi ñoo xamni forcément duñ ay politiciens. Mhm. donc ñi ci ñi ci ñi ci politique peut-être euh, yu néew lay doon yu bok ci ay parti politique euh, mais en tout cas buñu ñu le gouvernement ba publier ko je pense que frustration mom buñ ko défé en tout cas askan mi lañ leen jépi mhm.

ñu parce que dañoo dund 12 yu metti jaar ci ay crise yu metti ay choc yu metti donc réew mi am euh, ñu endetté wu extrêmement endetté euh, ñu war a dem ci benn euh, nu mu tuddati ay changement yu yu yu yu radicaux maanaam ñu ñu war a d'abord reddition des comptes bi ñu war ko teg ci yoon mhm. d'abord ñi xamante ni mooy cherté de la vie bi mi ngi fi mhm. te naa ne bu ñu demee trois mois dara changé wul askan bi de askan bi dinañ ko fàttali ñi nga xamante ni ñoo jël nguur gi encore que ñu war a waaw béykat yi war a ñu war a dem ci ñu war a dem ci ay inondation et mhm. tout ça ngi ñëw euh, donc foofu la réew mi di xaar waaye du xaar ñu choisir ay nit ñeneen nit jógee fële nii vraiment am nañ déception parce que choisir wuñ leen patati patata non ku ko ci def moom maa ngi maa ngi lay waatal ni bu suba <laughs> askan bi dañ la jëpp <laughs> loolu moo tax Pape loolu ba tax je n'aime pas trop. Mhm. Euh, li may lire par exemple ci réseaux sociaux yi. Mhm. heureusement heureusement ci réseaux sociaux yi la nekk. ñu diw ministre diw ministre diw ministre voilà c'est-à-dire que li may li ma wax mooy man je n'aime pas qu'on dise Moussa Faye euh, non Asafala on dit Ibrahima Anne mérite tel poste. Mhm fii lu ñuy mérite amu fi. et puis ça a commencé hein. amu euh, amu fi kenn ku nàmp ne. da nga war a nekk nangam. diw mérite nangam diw mérite nangam loolu xam la lañ soxla. quel est wala quels sont les meilleurs talents. pour être dans le gouvernement. effectivement quels sont les meilleurs talents pour occuper tel ou tel poste ñu dem. tu parles comme Idriss Seck hein? mu jëm hein? les meilleurs talents. <laughs> les meilleurs talents. Idriss Seck moom dafa doon wax ne il faut prendre les meilleurs talents. Les meilleurs talents. Du PDS et les meilleurs talents par, euh, euh, il, il, il, a euh, quand même toujours développé, développé un complexe des talents. Quoi. Mais, façon, mais les, les, il faut aller les chercher. Idrissek a toujours fait partie de, de, mes personnages, je le dis comme ça, <laughs> de mes personnages politiques préférés. Vraiment, euh, je dis bien personnage, mais moi, quelqu'un mm. ramener, le travail que je fais. quoi. Et voilà, le travail que je fais, voilà, il me fascine dans ce domaine-là. Mm. Mais, je disais donc, Kenny, dans ma Diapne, euh, pour man. Mhm. li gën mooy am confiance ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye. Mhm. bu ñu Pape Sané ne mooy nekk ministre. Mhm. ñu ne ci moom la confiance. ak raison ak critères ñu confiance mais si on considère que ni diw na combat bi. <laughs> dem na kaso. diw marche na. Euh, diw daana wax. Euh. diw daana nangam. ñu il mérite nangam. Ah, Sénégal la ah du récompense. non du récompense du mérite. Mhm. Sénégal give la parce que mhm. nous sommes 17 millions. je suis à peu près sûr que les 10 millions au moins. Mhm. def quelque chose pour que le système. change bien sûr au moins même bu voir vote même bu voir vote quelque chose pour que le système change. Mm. buñ ko jappé non suñu maire yi di jay ci mi. Mm-hmm. participer nañ pour que le eh, système change. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak donc buñu mérite la affaire lan la moy <laughs> Ibrahima les meilleurs talents. Mm-hmm. les meilleurs sénégalais. pour ko waxé soxla pour gérer ce pays. ku ci bokk alhamdulilah ku ci bokkul man ngaa jàpp fenn parce que réew mi mhm. fi ñu mën a jàpp pour mu dox dafa bari mhm. même nous qui sommes dans les entreprises privées bu ñu defee suñu liggéey ni ñu ko war a defee ñu ngi participer ci liy doxal réew mi mhm. mais que chacun croit que ni da war a occuper un poste parce que dem nga prison wala parce que jàpp nañ la wala parce que nangam ak nangam euh, mooy critères yi amoon PDS pour que vous bu ministre. man ma kasso fi souvent ñi seen légitimité ci loolu lañ koy dit. man man man du du PDS. Euh, bëgguma Ibrahima xam bu baax. qu'est-ce qu'il me disait oui ñun bi ngiddi lañ xaw ma dëkk ñoom Saada Ndiaye ba ko gars di door ay jaasi di saani ay xeer man dama yëg ci kaw auto bi def nii ci kaw wàdd mhm. xeer yeeg yat yi di dal sama kaw ak jaasi ouais mais c'est c'est bien c'est bien d'avoir <laughs> c'est un acte de bravo oui mais ça ne fait pas mais ça ne fait pas de toi un ministrable mhm. mhm. comme disait Ablaye Wade je crois c'est Wade moo ko wax xaw ma y a des gens yoo xam ne tu gagnes avec eux mais tu gouvernes pas avec eux <laughs> Pape Sané dañuy def du Marañas ak yow euh, tey jii wax nga ko Marañas xamoo xamoo Marañas <laughs> <laughs> ah. gisaanekat bi alors euh, tey wax nga ko sànq Moustapha mooy kii ne woon après nañ ko ne kuti xaw ma xaj non man bëgguma ñu ne ma kuti wala xaj bàyyi bàyyi plateau ay nit a fi ay xaj ñëw ñu suñu benn xaj waaw ma dara alors euh, voilà yaa doon wax sànq ci ay ministère de souveraineté wax nga sank euh, bu ma des affaires étrangères wax nga aussi euh, budget ak finance tey jii bu ñuy ministère de souveraineté yi jël ministère de la justice de l'intérieur mm. ak yi nga xamanteni dañuy am solo bu baax a baax ci administration lan nañ fa wara privilégier expérience wala dañu wara changer radicalement le système non tout à fait expérience euh, parce que ministère yi euh, waaw ministère yooyu daanaka boo xoolee ñooy soubassement république bi mhm. so xolé ministère des finances et tout ça peut être Matar c'est comme ça peut être tout un autre mais bon comme là actuellement euh, il a le vent en poupe pour avoir organisé l'élection yii mooy kii ñu sa doon ci bureau ma kii 200 millions yi. <laughs> xaw ma de man ah, ah moom laa gis presse bi ne c'est c'est l'almaami de l'économie xaw kan ci Moustapha Ba presse bi de l'économie. bu <laughs> <laughs> waaw non non non kooku kay Moustapha. Euh, fa dëgg yàlla ma voilà. am na sànq may laaj naka mandat mi ngi génn ba tey je pence que mi ngi génn ba tey donc. wax dëgg yàlla ba génn. ah tey génn. ah jot naa PDF yi ah, tey. Ah, <laughs> <laughs> non dama <laughs> ci souveraineté <laughs> yi. voilà donc ci ci bokk na ci gouvernement yi nga xam ne. Uh-huh. bokk na ci ministère yi nga xam ne moom la gouvernement bi président ci ci lay gën sukkandiku. Mm-hmm. voilà pour mun a am visibilité cest di dire aller très vite.

Moussa l'a dit tout à l'heure économie et finance sunu économie économies, yi pap ñëpp xam que surtout dans le privé mhm. ni que que on est sur un fil tenu mhm. moi, maanaam bu ñuy laal rek mu donc il faut mu donner nit ki nga c'est un homme du serral xam fan la rapidement laal surtout dette intérieure bi ak a ak yeneen a xamante oui fan la mun a mhm. rapidement très rapidement pour mun indi xaalis bi nga ñu bañ a dugg ci yenn rupture wala yenn crise yi nga xam ne bu subaa fi am inflation liy yokk liy yokk mhm. muy ministère des forces armées il faut également ñu mhm. ut ka nga un homme de confiance du président de la République absolument parce que foofu dit, il faut vraiment que président wóolu ba pare mais ci ça, le ministère des forces armées euh, jox nañ ko ay profils yoo xamante ni amuñu benn rapport ak armée waaw tout à fait oui parce que le ministère des forces armées euh, Pape du ma bàyyi c'est-à-dire que ci ci ci mbiru président la quoi. c'est-à-dire que mm-hmm. le ministère, yow bu ñu la ko teewoon nga ne parce que li ngay wax li ngay wax li ngay wax ak di def yëpp c'est le président. le président d'accord voilà. am le président c'est le chef suprême des armées. Mm-hmm. donc yow bu la fa tegee da ngay mel ni benn kuy inauguré chrysanthème rek quoi. Mm-hmm. mais c'est le ministère qui pose moins de problème. moins de problème non non parce que foofu. tu as des, des entités très fortes yi nga xam ne ñoom diriger ministère bi moo tax boo xoolee foofu ministre bi dafa am chef euh, directeur de cabinet civil am directeur de cabinet militaire. waaw l'OLU les lee da gérer côté B, mais côté militaire qui da koy gérer. Mhm. donc l'OLU il faut quelqu'un d'abord qui nga un président ou le loco. muy ben mu également quelqu'un qui nga xam ne tamit l'attention des des militaires. Mhm. lu am solo ak respect waaw lu am solo la. Mhm. waaw c'est-à-dire il faut que militaires yi respecté la. Mhm. d'accord mais buñ la fa ëndee te ñoom respecté wuñu la. Mhm. mu am na fi benn ministre bi nga xam ne bëgguma tudd turam. Euh, non jër Benoît Diop ak Karim euh, le général la comme ça Karim na. Euh, kii Guèye. non Ba nu mu. Babacar kiñ ki ki ñu tuddee ma paxam la tuddee Karim. Karim man Babacar Guèye moom général mook mook Bekay Diop. Bekay Diop bis des forces armées moom lui lui chef des armées seen seen diggante mosul. avion avion dañ ko doon xëccu. <laughs>

mun na ma war parce que tu as le cœur de l'État fan lañ lay les bulletins de renseignement l'administration territoriale yenen ak nekk am na lu si Djiboka doon wax de oui nee na ko mu ne du xawma lan du du haut du 5e étage de la place de la place Washington je survole le Sénégal je survole le Sénégal c'est tout oui et si je voulais j'aurais eu 5 fois la possibilité fi ma pas Pape Makhtar daan def avant muy tagg jabar sax ministre de de la République <laughs> donc ça dit, c'est il faut que nous donne vraiment mais why, why waayu ministre parce que dans les détenir et pouvoir yi nga xam détenir et connaissances yi nga voulez so euh, sur court-circuiter le président c'est très facile mm-hmm. waaw donc t'as fou fou. Euh, il faut quelqu'un de Mais Il se raconte même que ça, ça avait créé un, enfin, des dissensions entre Djibo le ministre de l'Intérieur, mhm. Ousmane Tanor Dieng, mm ministre des Affaires et Services présidentiels. Tout à fait. Euh, qui, qui a un renseignement, qui a un renseignement, mhm. ça n'allait pas, pas trop. Quoi. Voilà. Mhm. non non am renseignement Djiboka Djibo Ka doon remonté. bu eggee foofu au niveau de feu Ousmane Tanor vous ko et d'ailleurs, je crois que Macky Sall, est devenu président, il a concentré tous les renseignements. Il a concentré. Parce que c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Mais moi, il a fait plus que concentrer. Euh, moi, là, je moi, donne le, la quintessence, le pouvoir du ministère de l'Intérieur, mhm. d'agon. C'est-à-dire, il a laissé quelqu'un comme Alingou Ndiaye quasiment sans service de renseignement parce que les grand service de renseignement le renseignement intérieur daf ko jël yóbbu ko justement ci DGRI la délégation la direction générale du renseignement intérieur. Mm-hmm. bàyyi le les renseignements généraux avec le ministère de l'Intérieur. Comment tu as ngi may xool léegi doog jot de. donc donc <laughs> également Moussa tu as bien fait de le rappeler. donc loolu également mu que le nouveau président daf ko war que le pouvoir bi nga le renseignement intérieur euh, ministère de l'Intérieur daf ko amone ñu delloo ko comme nga xamné ministère des forces armées ni mu amé euh, plénitude l'enseignement extérieur. donc lolu lu am solo la. Mhm. té lolu il faut que président comme fay mu don ku muy wolu mu don nga xamné du ko euh, dans le dos quoi. Mhm. voilà souveraineté mais mais faut pas faut pas qu'on croit que muy muy ñom euh, euh, Martar Cissé euh, le secrétaire général de la présidence comment il s'appelle Il ne mm-hmm. faut pas croire que c'est des gens qui sont complètement étrangers à Diomaye Sonko hein. ils mm-hmm. se connaissent très bien mm-hmm. très bien c'est l'administration hein. contrairement à ce que les gens pensent ils se connaissent très bien tout ce qu'on peut dire de bien ou de moins bien sûr Martar Cissé ou bien sur un autre Diomaye Ousmane Sonko des gens qui se connaissent très bien pour parler de ces ministères là nous avons fort tu vois la famille judiciaire mhm. euh, il il ce qu'ils te disent moi le ministre de la justice quand même je ne sais mhm. pas qui sera nommé d'ici ce soir mais pour nous il faut tout faire pour éviter mon un professeur d'université voilà un avocat un avocat un professeur d'université ou un avocat parce que y a appelé le professeur d'université comme l'avocat xamuñu dëgg de comment fonctionne le système judiciaire mhm. les magistrats connaissent mieux ça tey on a expérimenté Ismaël Madior mais c'est une catastrophe. Ouais. Ismaël Madior c'est un accident de l'histoire. Ismaël Madior Fall a bu cité les pires ministres de la justice du Sénégal. Moi moi, mooy nekk ci bopp bi. Et pourtant quel est le droit. effectivement est le ne xamul justice mm-hmm. parce que da koy jàngale. Mm-hmm. on a expérimenté un avocat, je crois que Aïssata Tall Sall moo ci mm-hmm. Moustapha comment ça s'appelle maître Amadou Sall l'a été je pense. été. ah oui euh, Amadou Sall. Oh, oui mais mais mais ça a été. vraiment voilà truc quoi. Et quand les, quand les gens te citent, par exemple, quelqu'un comme Jacques Boré, qui a été magistrat, avocat, mhm. mais ils te disent que ça allait, ça allait plutôt bien. Mhm. Donc pour moi, nous avons la famille judiciaire mhm. parce que au moins on a vu Ismaël Madior qu'est-ce qu'il a été capable de faire même Cheikh Tidiane Sy qui n'est même pas de cette famille là moom moo gën fuuf dama mhm. de Mimi Touré Mimi Touré mais dans le Mimi Touré sax moo gën am euh, Ismaël Madior Fall comme ministre de la mhm. justice mhm. mais mais l'ol, lu jar a xel la maintenant le ministère de l'intérieur le ministère des forces des chances pour euh, des chances pour revoir Mimi Touré nekkaat euh, chancelière wala mu nekkaat garde des sceaux mais mën na nekk mën na parce que Mimi Touré li nga li nga xam ne moom la doon xeex bi mu nekkee ministre de la justice. Mhm. génnul dara ak li nga xam ne moom la ñii di wax. Mhm. surtout des comptes. soo ko boole woon këpp mu tegaloo yem ci. Mhm. mooy moom li mu doon wax bi mu nekkee ministre de la justice mooy reddition des comptes képp koo xam ne da nga yoroon ci alalu Sénégal ñu leeral ko. te loolu ci la nekkoon ba ni mu jógee ci gouvernement bi mom kay soy reproché Mimi Touré da nga koy reproché quelque chose par rapport à ses prises de position politique Il mm, yu non mais ministre bi mu nekkoon ci loolu lañ ko xamé te mosu cee wàcc mm-hmm. mosu et loolu du man maa waxal même les magistrats yi nga xamné ñom lañ tannon, ñu jité la créer le procureur Ndaw mi ngi ñuy dégg mm-hmm. mais il il le dit que ni lim ko nekk yépp mënu amul fenn fo xam ne ko influencer jéem ko influencer en quoi que soit donc mu nekkaat ko man duma duma poser duma poser problème <laughs> souveraineté ministère de souveraineté yi euh, tey jii profil wala yan profil nga ci xaar expérience vécue wala da nga bëgg rek ay nit ñoo xamanteni ñu bëss nañu. waaw mun nañ mun na nekk ñu bëss comme mun na nekk ñoo xamante ni nañ fi yàgg nañoo exercer métier yooyu té def nañ ci ay résultats itam mais il compétence na ko compétence na lal parce que c'est des c'est des ministères comme wax ay ministères de souveraineté la yo xamanteni vraiment kuy waru fa waru fa mais pour revenir sur le cas Mimi Touré je je la verrai bien au, ministère des affaires étrangères parce que fi diplomatie ah, Sénégal tollu jamono euh, ce serait quelqu'un vraiment bo xamanteni na défendre euh, sur le plan sous-régional sur le plan international parce que nit la ko elle a occupé des fonctions euh, euh, c'est les, fonctions dans les organisations internationales comme les Nations Unies et tout et puis am un background am une relation sur le plan international pour mon exercer au sein du ministère euh, des affaires des affaires étrangères mhm. euh, donc pour les autres membres voilà des ministères de souveraineté comme tu dis il faudra vraiment avoir des, des, des compétences avérées pour que vraiment Sénégal euh, li nga xamanteni ni fi nek tay ji mom lañuy bac moy ñu delloo ñu lépp li nga xamanteni mom lañu mom ñu ñu ñu ñu ñu ñu taxaw ci thème mm-hmm. euh te au cours des des des entretiens qu'on a eu avec Abdourahmane Diouf docteur Abdourahmane Diouf mm-hmm. docteur euh, Cheikh Tidiane Dieye ak euh, ki nga xamanteni moy mooy Boubacar Camara vraiment génne nañ fi xam-xam bo xamanteni peut-être buñ ko déroulé euh, ci yoon ci ci département yoy nga xamanteni mom lañuy mom ñuy moom wax mën nañu ag ci lepp li nga xamanteni euh, mom nañ ko comme ressource wala contrat yo xamanteni signé won nañ ko ñu mën jaar ci ay mécanismes yo xamanteni renégocier ko mm-hmm. ba askan bi gis ci sen ba askan bi gis ci sen bop donc euh, il faudra vraiment des compétences avérées dans ces dans ces départements là mm-hmm. ñu def dernier tour de table ci le cumul

le maire de Yamagansika Sikambaoui. voilà donc euh, Bataïdi, je crois ils n'ont pas démissionné c'est une mhm. poste maire ou le député mais li je crois que Taïdi, était peut-être sax mënoon nañu contexte bobu mom mo xawoon défavorable mais bi mom contexte bi favorable favorable tey jii li ñu gis moy que euh, xaw ndax c'est encore effectif ou pas mhm. Ousmane Sonko biñ ko nommé nee nañu day nommé day euh, démissionné waaw mais démissionné démissionné wul mom la moom laa moo si c'est effectif ou pas mhm. c'est-à-dire bu dee donc mu nek une mbir bi nga xamné wax fa deug yalla day nek une réalité pour tous ceux qui épousent les idées de Pastef. Mhm. Euh, parce que mënoo tamit ne da ngay ñoŋal euh, as euh, alalu askan wi. Mhm. bëgg di dajale et mandat et mandat et mandat fayeeku fii fayeeku fii alors que tu as la possibilité. même bu dul sax privilège mais productivité bi nit mënut a nekk par exemple maire à Saint-Louis aussi c'est bureau nekk fii à Dakar. à Dakar donc mu ngoog daal je crois que tey mhm. euh, Pastef à la chance à la latitude la nga xam ne la véhiculer ci biir projet nous mettre en exergue nous lan faire en sorte que mettre fin au cumul ba paré nak euh, dans les jours à venir nous allons ndax légiférer. ci euh, wat xool ni que euh, telle fonction à telle fonction am telle fonction ainsi de suite ainsi de suite mais en tout cas c'est une bonne chose. bu ñu xoolee le personnel la qualité des ressources humaines yi nga xamne mom la Sénégal mm-hmm. vraiment il faut faire en sorte que qu'on puisse profiter du maximum.

on peut appeler ça cumul également. Mhm. par exemple nga gis un ministre mu nekk PCA wu fii PCA PCA PCA cest à un ministre qui peut se retrouver avec 20 25 30 millions à la fin de chaque mois donc également euh, il faut que nous gi tamit aussi mhm. pour justement euh, cette bonne gouvernance mu ñuy woote vous euh, voici des niches yi il faut ñu combattre très tôt. Mhm, Euh, sa kii bi sa sa taalibe bi nuyul ma ko bu baax a baax ni ko naa naal bàyyi di la. Mohamed sama

je suis tout à fait d'accord avec nous. Mais de gëm gommer, su fekkee ne dañ maire par exemple. oui je dis maire. oui Nous fal le ministre. Mhm. mais dans dañ vous wax le choix. soit, soit vous bëggee tu restes à la mairie. Mhm. ñu pas Pape def ko ministre parce que compétence yi manki wul ci réew effectivement réew bi manqué wul compétence ba ñu jox ayo ba ñaar ñetti poste mu koy tu veux servir ta localité mo la gënal. Mhm. dëkk. nga des fofu maire. Mhm. benen bi moy commune de dina permettre sax ce qu'on appelle des maires résidents. c'est-à-dire que tay ñu un maire je sais pas moi à qui a ses bureaux à Dakar. Mansour par exemple. Qui a? envoyé documents. Euh, oui mais mais ni ci bari. dañuy obligé ñu de indi documents yi parce que mm. li ñuy bañ mooy délégué une signature benn Moustapha Diop bu nekk foofu di di jaay suuf dëkk ba rek di signé di dem mm-hmm. Mm-hmm. yooyu moo tax bañ tey ji bu ba maire c'est mm-hmm. c'est un choix politique choix man choisir nekk sama maire sama maire deuk doyna ma. Mhm. ma deuk ak sama wa deuk maire ma soxla gis ma suma ñew c'est parce que soxla suis fi andi. Mhm. mais mëno nek maire ab deuk qui se trouve à 300 km de Dakar. et tu vis à Dakar. effectivement. tu vis à Dakar tu vas là-bas une fois par mois ou bien une fois par 15 jours C'est ce maanaam. Mhm. tey jii heureusement mënoo nekk député nekk ministre <laughs> mais nous dañu waroon fexe faire ku fi député.

Euh, euh, pour siéger dans, une course dans un conseil d'administration ou pas, mhm. je peux aller siéger là-bas. Mmh. Je, je siège, je fais mon travail. Lolo, tu veux, Les gens qui travaillent dans le privé, mhm. de siéger dans des conseils d'administration. Lolo, beaucoup à Mais les

faire pour faire li nga xamne mom moom waxal Sénégalais. Mhm. ayo ba ñu terminé ak yow. oui euh, pour man euh, li Moustapha wax kenn mënu ci teg dara amuñu excuse. Mhm. pour man Ousmane Sonko dem biñ ko nommé décret euh, premier ministre daf ci waron and ak mom bu mu def déclaration mu ni démissionné na. ki nga xamanteni ni moy moy mooy poste bi nga xamanteni moy maire maire Ziguinchor pour man daf ko waron waxale ci discours bi. Mhm. démissionné carrément. boobaa mom benn ministre dootu xalat ak. waaw boobaa benn ministre xelam du dem ci ni. ki kat ah i duñu duñu duñu kii. donc mais comme man je je je pense sincèrement à 100

Euh, c'est ce qui c'est c'est c'est c'est ce qui donne un peu une idée de ce qui attend Ousmane Sonko et les autres. Mm -hmm. parce que ñi nga xamanteni ñoo leen top fondé un espoir ci ci ñom duñ leen bàyyi ñu def lu leen neex. tay ji Ousmane Sonko bu nekkee premier ministre commencer commencer commencer dérouler ba paré tout temps ne démissionnant pas de son poste de maire boy dañ ko acculer ni ko démissionnaire parce que li ya ko waxoon ci kanam askan bi yépp mhm. ba ñu japp ko donc du tay ji yow yaa ñuy taxaw ci kanam askan bi ñu tuutal ak li ñuy soutenir yépp donc pour man amuñu benn excuse pour euh, pour vraiment cumuler des postes de de de ministre et de maire ou de ministre et de député. Mhm. donc ñi nga xamanteni vraiment ñoy nek ci gouvernement bi euh, te ñu te ñu am yeneen poste euh, nañ waaj nañ waaj démissioner te indi benen coow lo xamanteni ni vraiment réew mi. taluñu taluñu loolu dañu dañoo bari ay ay ay ay talent encore une fois. bari nañ ay talent trop vraiment ils ont ils ont l'embarras du choix. qui sont au Sénégal qui sont ailleurs. Mhm. ko ci confier poste man gëm na da doxal. mais à part de cet instant là man gisuma lu fi jar du cumuler générosité. générosité là. <laughs> man eh, Pape tu as raison affaire bi générosité sax la mm-hmm. parce que man limay amé ñaar ñetti salaire diko dajalé mm-hmm. mais bàyyi ayoo ba mu occupé benn poste yor yor yor salaire ba paré di def liggéey ba en plein temps diko consacrer temps bépp mais dara gënu ko mm-hmm. mais nek maire dafa reuy Pape nek maire moy sa dëkk mo la sagal def la maire dara gënu ko euh, nga nga servir ko sa temps bépp dara gënu ko mais nek maire nek ministre lay lay dal moy ñom ñëpp ne di def ñuy bari dañ ci am regret parce que dañuy tok après ils se disent mais man pendant que j'étais à Dakar di assumer ay fonction ministérielle am na ay gens yoo xam ne ñi ngi nekk sama dëkk yor sama signature di jaay ay suuf man bëgguma tudd kenn di ko tooñ mhm. mais mais y a des exemples dans beaucoup de localités yo du pays yoo xam ne jaay nañ fa ay suuf yoo xam ne le maire n'est même pas au courant te après problème bu ci am ci kaw maire bi lañ koy teg dama lay jox exemple Aminata Mbengue Ndiaye bi mu nekkee dafa nekk maire Louga du temps de du PS PS daanu mu nekk maire mhm. mu nekk mu mu mu ñàkk maire bi ma ña fay remplacer ko elle est revenue après nekkaat maire comme opposant mais à l'époque Aminata disait que ni expérience nekk maire Louga di dund à Louga. Mhm. bu amee soxla dem Dakar. Mhm. mu gën a enrichissant foofu le contraire. parce que bi mu nekkee ministre le contraire moo doon am. Mhm. mooy Dakar nga doon nga doon nekk di dem Louga les week-end yu demee et ça c'est ça doit servir. di la jaajëfal euh, bu baax a baax. jërëjëf Moustapha Diop jaajëfal euh, Pape Sané suñu sëriñ bi comme léegi sëriñ nga. waaw intérêt de gis nga mooy non. nit daal ah, ah, ah, balaa moo jëkk fii ñu nommé ma fi ministre de l'intérieur. waaw waaw audience muy metti baax na rek. di jaajëfal a Ayoba Faye merci beaucoup pap euh, ñuy jox dik dajé comme xamna après ndogu rek euh, comme euh, gouvernement gaay gars yi bëgguñu ko bëgguñu ko gënné waaw waaw à 20 heures sax après discours du président de la République yakarna débat dina fi am Pierre-Edouard Faye moko ko nar animé aussi reporter bi Serigne Gueye mi ngi feulé ci buntu palais lépp lu fa am rek incha

doo comprendre waaw vraiment sama yoon nekk nag mais RTS euh, jàpp naa ne Pape défi bu mag la. oui pour le pouvoir de Diomaye Faye. non sa yoon da ci ne oui pour le pouvoir de Diomaye Faye effectivement défi bu mag la il faut que la RTS change. Mhm. lii ñu doon defal Macky Sall te fan yi ñu koy defal. Diomaye Faye effectivement effectivement dafa war a dakk loolu mooy liy dëgg. Mhm. c'est-à-dire que il faut ñu am RTS boo xam ne euh, euh, Benno Bokk Yaakaar ak. Mhm. APR ak Pastef ak. ni ñu koy waxee sax réew meeg. ñëpp ci yam. Déthié Fall ak. Malick Gakou ñëpp a ci yem. Mhm. Sénégalais yi ñëpp yem ci. RTS boobu lañ bëgg. Mhm. mais pas RTS bu tag Macky Sall Macky Sall jóge fi. do nga wëlbatiku di tag Diomaye Faye Ousmane Sonko. naan le président Ousmane Sonko. ay mamam fi lañ jugé bàjjenam fi la dëkk mais c'est du n'importe quoi. Mhm. amna solo bu baax baax di jaajëfal ñu doon suivre ci 99.0 euh, ak ñu doon suivre ci aussi euh, page YouTube wala fa di jaajëfal ci ñu doon seetaan ci euh, Walf TV leen jox rendez-vous demain incha ci benen keppaar gi di wax ngeen wéy di suivre suñu programme fi ci Walfadjri Walfadjri moins la voix euh, des sans voix. tu feras un très bon. nous avons solution mi solutionné la voix des sans ça. Eh, ko waxee noonu la sukkuraan comme temps bi dafa dem kay ma ngay xeeb ki yom uh-huh. joxal la ngay eh ew euh, yi bu nuyu naa la jóobu jubba maa ngi lay fay ajaratu euh, euh, kii su koy mbaay di nuyu ajaratu bétti mbuub di ko ñaanal yàlla jàmm <laughs> di nuyu madame Dieng ma jigéen Diop mm-hmm. nuyu la bu baax a baax daf mel yaa ngi tàggu président Macky Sall ci maron bés bi nuyu ko moom xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu Omar bun Xattaab Gueye fii ci maire de Kër Massar maa ngi jégalu ci xewet yi xam nga dama jóge saal nii euh, moo tax. entraînement bi ah macha allah waaw ci kanam. jërëjëf ci kanam nga ñëw ci euh, ah. victime du net am solo. Ah. Euh, donc actualité du jour Modou ñu ñëw ci maa jigéen Diop. image tey lan gën indil. waaw euh, su kay maa ngi la koy wax bi ñuy door. Mhm. monsieur Ousmane Sonko nag moom moo nekk premier ministre bi daanaka rek fi mu toll nii mooy jël en charge lépp loo xamante ne ni wàllum coordination la ci biir gouvernement bu yees bile. Euh, woo na nag sénégalais yi nee na ku ñu fal ak ku ñu falul yëpp na nga xam ne projet bi ñun ñëpp nañ ko àndandoo liggéey ko ñu dem déglu si aslëf te dellu si.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 ba dara dul dara legui nak accident daf len ñu bok Ousmane tabbi ci momit mu doxé fa sax tabbi ci parce que nit di nga di nga dem ba foy ak foy ag ak mom ci lu mu dugg nga dugg ci mm-hmm. comprendre nga ndax ciofelo bi ngay am ci mom et d'ailleurs loolu leen Camara rappelé euh, bis bu ngeen démé ba ivresse du pouvoir nar leen a dugg euh, ba les délices du pouvoir nar leen a dugg fatalikul xalé yi fi faatu sakri ñi fi sen joxe beut ñuy joxe la làmmiñ ñuy joxe tank ñuy joxe loxo pour que li li li lii mën a et je pense que tant que ñi ngi tek loolu sen kanam Ousmane ak ki bi du meuna mën d'autant plus que Ousmane Sonko ci boppam euh, le fait que mu tab jomay war ni nit la kuy jëlale tay jëgalé jërëjëf c'est c'est un homme de dépassement yaakaaruma muy dugg dans des conflits ak kii bi jërëjëf ci ha ñu lay gërëm bu baax bëggoon na la may temps bu gën a bari waaw ah, yow mais mom fi comme ni ko bu waxee nañ lu bari sax waaw ah, mais inshallah allah ñaanal la ñaanal jàmm ah, nawloo xam-xam bi bu baax dila ñaanal aussi tamit euh, parti politique nga yor man yéene na la ko gaay nan la wo denk la dara li sa bop ak sa xam-xam nga génnee ko jëriñoo ko Sénégal loolu aussi tamit euh, mën a tool bi dafa yaat ku ne la ñaanal jàmm bu baax Siré kon euh, suka mi na ala jërëjëf Omar Ibn Khattab Gueye jërëjëf Siré am na solo dal gi ak tee gi xam-xam gi yàlla na ko yàlla gën a yokk ñu dem fi nga xam ne rek moom moo jëlee si daal di ànd ak suñu sponsor leader ñëwaat

eh waay euh, son yi bu nuyu naa la Jóobu Jubba. maa ngi lay fay ajaratu euh, euh, kii su koy mbaay. di nuyu ajaratu Betty Mbuub. di ko ñaanal yàlla jàmm. <laughs> di nuyu madame Dieng ma jigéen Diop. Mm-hmm. nuyu la bu baax a baax. daf mel ni yaa ngi tàggu président Macky Sall ci maron bés bi. nuyu ko moom xaritu Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi lool te ànd ak wér. nuyu Omar Bun Xattaab Gueye fii ci maire de Kër Massar maa ngi jégalu ci xeer yi xam nga dama jóge Sall nii. Euh, moo tax. entraînement bi ah macha allah waaw ci kanam. jërëjëf ci kanam nga ñëw ci euh, ah. victime du bu am solo. Ah. Euh, donc actualité du jour Modou ñu ñëw ci maa jigéen Diop. hommage tey lan gën a indil. waaw euh, su kay na maa ngi la koy wax bi ñuy door. Mhm. monsieur Ousmane Sonko nag moom moo nekk premier ministre bi daanaka rek fi mu toll nii mooy jël en charge lépp loo xamante ne ni wàllum coordination la ci biir gouvernement bu yees bile. Euh, woo na nag sénégalais yi nee na ku ñu fal ku ñu falul yëpp na nga xam ne projet bi ñun ñëpp nañ ko àndandoo liggéey ko ñu dem déglu si aslëf te dellu si.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 voilà mi ngi noonu Omar nee na wootewuñu woote wu nguuru liggéey la woote moom la tënk daanaka ci li gën a am solo ci wax ci leew waaw ah, Sonko waxi démbam. Hmm. mooy waxi tayam. bi mu nekk ci opposition tey la daan waxee. bi mu jotee ci nguur tamit waxam soppeekuwul. waaw ah, léegi nag li ma gën a neex ci nomination Sonko mooy sonk mooy Jomaay Jomaay mooy sonk waaw mm-hmm. ah, loolu moom <laughs> dë dëggal na ko. léegi nag li fi ne mooy. Euh, liggéey bañ a nguuru jàpp ni résultat bi mooy à fin bu demee ba seen mandat jeex. ni leen Sénégalais du juger. Mhm. loolu mooy li ma gën a neex ci waxi Sonko te moog Jomaay dafa am loo xam ne nit ki bu koy doxee dafa wuuteeg ñoom rupture dañ koy doxee ba si seen kàddu Jomaay bi mu ñëwee li mu njëkk a wax mooy humilité te ñun fii bu la mësaan a fal da ngay arrogant takk bongo yeeg li nga dugg ci mais humilité Sonko bi mu ñëwee tamit wax ni du lu ñuy tiitaroo mais du lu ñuy damoo. mais danoo war a liggéey. liggéey boobu nag da ci woo Sénégal yëpp léegi nag dafa am baat bu xale yi doon wax. baat boobu tey jii la ko xale yi war a dëggal seen diggante ak Sonko xale yi doon doon wax naan yow rek la ñuy topp. Mm-hmm. tey nag Sonko nee na xale yi topp leen mu ñu liggéey réew mi. bu dee nag lan doon wax dëgg la ci ñoom. nan ko topp mu liggéey réew mi tey jii la gën a sox ko topp te présence Sonko ci kanamu Diomaye li ma ci gën a neex dama ko wax benn xarit démb dama ne ko. projet bi communication. Mm-hmm. moko ko fi mu né mm. waaye communication tay moy tax. mu liggéey am liggéey am. inshallah communication moom Sonko doy nañ d'accord accord sooy bu sa jangati ci wax né euh, liggéey rek. wa mm-hmm. leen de moom xam naa mën naa la koo xamal. Mm. Assane su kurkur bari na muy melni janax <laughs> kep ko gis ci gouvernement bi. <laughs> jappal ni ku djubla ah ok d' <laughs> wala képp koo ci gis bu ñëwoon ko jubadi la. jàppal ni ko nar yàlla nar a dimbali la. ndax mooy lan. ma jigéen gis nga la daan xew. Euh, gaa yi toog ci plateau yi naan ministre sàngam moo ma may fii ay teen rek moo ma may lii ak moo ma yóbbu fii gëm naa ne nguur gi ma gis muy tege. ministre bu fi dof doflu ba jéem a am fi am am bu wuuteeg ba nga amoon ñu lay joobee fu nekk. daañu saytu sa saytu sa mbir. te premier ministre moo ñu ko wax muy Ousmane Sonko waxuñu nguuru liggéey la wax. dama jàpp ne nag képp ku ñu fal maa ngi tooñ laal la ci suba bi ñu tàggoo ci rajo bi ma ne ko yàlla nañ la fal mu ni ma mukk ñii falantewu ma ak ñoom ndax ñii ñu jub la ñuy wër te man jubuma ma ne ko laal jub nga mu ni ma man xam naa sama bopp jubuma wallaay loolu nag am na lu muy signifié d'accord yàlla bu yaakaar tas allahumma amin alaaji est-ce que gouvernement bi di ñëw ñoom amuñu problème parce que nii waa ji waxee nii te moom moo nar a coordonné li nga xamante ne nii moom mooy xew ci réew mi euh, du nekk loo xam ne day indi jafe-jafe ci ñenn ñi non gouvernement bi mënuñu am problème. Hmm. Euh, xam nga àddina. sénégalais yàlla daf ñu daf ñu defal dara. gis nga réew moo gis njubadi am fa. Hmm. xeet seetal njiit ya moo tax ñu wax ni réew mu ne njiit yamu hmm. yamu yaayoo rek ñoo koy jiite comprendre nga sénégalais yëpp dañu àndandoo dal ne ak juba dina fi joge ak njub lañu wote mu jaral ay sénégalais ñu yëkëti seen xaaliss def ci ba lolu yegg comprendre nga ñi xam nañ li leen fal lan la xam nañ ñi dañ leena fal ngir ñu jubbanti rew mi ñi ñi jël tamit dañuy top ci yoon woowu rek ñu jubbanti rew mi parce que amul benn jafe-jafe pour rew mi ñu tek ko ci li nga xam ne mooy mustaqim nit ñi nañ ne ci rew mi te baña ne ci seen bop mais dañuy doon fal fii ay ministre yoo xamante ne bi man am na ay ministre yoo xam ni xam naa leen yàggoon nañu di ñëw fii di la demande pour nga invité ba nga leen di njëkk a gis da ngay yéemu sax mhm. tey ñi ngi yor alal ju dul jeex comprendre fan lañ ko jële fukki at ak ñaar ngay liggéey di bëgg a yor koom goo xam ni kenn mënu laax nu mu toll mhm. mooy wane ni nekkoo woon ci yittey sénégalais ci sa jëmmi bopp bi nga ne woon ñi nag li ñu woote defe naa ni sénégalais bu ne def cee war a jàpp muy yow mii toog man mii sooñ mii ñun ñii su Omar tout le monde dañu war a xam ni dafa am loo xam dañ ko bëgg Japon bi ñu jógee ci guerre bi am na génération yoo xam ne dañu sacrifié wu jaral leen ñuy liggéey sax yenn kii te kenn du leen ko fay mm. comprendre ga ngir seen askan seeni doom tey mën a tedd mm. tey fu seen doom toll Corée du Sud a ngi nii yaa ko rawoon biñ lay joxe indépendance. tey da ngaa seen pëndam. Chine gi nekkoon na fi ci ay kiiwu tiers monde yeeg yooyu Chine nekk fa nekk nekkandoo woon fa ak ñun ana Chine tey dañoo seen pëndam. donc ay malaaka ñëwuñu defar ko de. ay nit ñoo ko defar. Mhm. yaa ngi dégg ay nit ñoo ñëw taxaw defar réew ma ba tey nga am xemmemteefu daw di fa dem loolu nag mën naa ne. il faut que africains yi gëm ni war nañu mën a defar suñu réew yi mais bañ di defaroo ci suñu réew yi jël koom gi di ko defaroo loolu moo mooy war a dakk te jàpp naa ni ñii dinañ ci joxe exemple bu yaatu ci kii parce que xam nga lu tax dañu am ay nawle yu nekk ci bit biti ñoo xamante ni bi tey ñun ñoo leen gën a rafet donte ñun ñoo leen gën a rafet ni ñu jotee nguur malee ngi nii ci suñu wet ñuy liggéey liggéey bu am solo bañ a gisee ne tubaab yaa ngi leen di caaxaane dëgg la yaa ngi dégg ñu ngi liggéey liggéey yu am solo réew ma yëpp àndandoo manko Niger gii mu ngi nii léegi tey ñu dem seen yoon c'est parce que lan xam nañ ni Afrique dafa jot ngir mu dem mhm. doomi africain yi lii ñuy def di dugg ci géej yeeg dem dakk loolu nag li koy dakkal mooy njiit yi daal dee liggéey kon li sunu borom wax loolu rek mooy li nga xamante ni bii mooy li am mhm. réew mu ne mhm. njiit yemu mérito rek lay am mhm. yal nañu yal na yàlla yal na yàlla nag woyofal yenn bi may leen ndam parce que ndam seen ndam mooy sunu ndam waaw yàlla na leen yàlla may amin amin amin en tout cas mi ngi noonu na lii la ñu indi woon uh, tey uh, ci actualité di jour bi uh, di leen ñaanal comme ni ko ji waxee rek yàlla na yéen bi yooyof lool Sénégalais yëpp ba képp kontaan di leen jox di déjee suba ak jàmm incha allah rabbi eh, jërëjëf mage ñuy sargal ñëpp ñi nga xam ne doon nu bàyyi xel di moo du Niane nekk fa li nga xam ne rek Modou ca Italie daf ñuy bàyyi xel saa su ne mu di man mu di biti béti mu yow ak ñi nga xam rek ñoo nek ci plateau bi di masawu nak Abdou Khadre euh, bardat cosmétique euh, mi nek fi nga xamni modi euh, castor ki wam bepp bépp lakk ñu koy ñaanal yalla nako yalla nako yalla may leneen ndax lu gën rek la yalla di def donc dañuy dem jërëjëf Alaaji Moodu donc dañuy dem fi nga xamni rek mom modi solution TV égal fa li nga xamni rek mom modi victime di net. boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku